dali na jàmm ñu ànd xëy yër yéen i ñu xëyandoo yéen i kaay gii di réew mi quotidien mu xëy di ñu tàggee Mansour Kama mi nga xam ne moo jiite woon confédération nationale des employeurs du Sénégal daat nay génn àdduna yéen i kaay gi nee na waaye nag secteur privé national bu Sénégal daat nay ñàkk kàngama njiitu réew mi di président Macky Sall moom daat nay wax ne Sénégal ñàkk na koo xam ne lu nekk defal na ko am réewam Abdoul Mbaye daal di wax ne Mansour Kama nit la woon koo xamante ni ko bëggoon réewam la nit la koo xam ne maanaam ku nangu woon a liggéey la jamono ji nag Sénégal ñàkk na ab patriote Samba Ibrahima Sey ministre du travail la mu xam ne nee na Kama nit la woon koo xam ne ku équilibré la woon waaye nit la koo xamante ni générosité bi nekkoon ci moom foo ko waaye nat daan koy passé Cheikh Diop bu FC moom daan nay wax ne capitaine d'industrie modèle la woon moom Mansour Kama yéen kay gi réew mi ko dëcee mu ñu xamal laan ñu Mansour Kama secteur privé bi ñàkk na ay jamono jiite woon na fi fondation du secteur privé pour l'éducation 2014 ay jamono tamit fédération bu SDE bokkoon na si ñi nga xam ne ay yoon yoon doon nañ négocier diggante nguurug Sénégal ak organisation patronale bi journal bii di la sa xëy di ñu xam xamal nañu en tout cas vendredi samedi dimanche bi ñu génn daan nay tàng jër ndax xalif général bu mbëlëxe daan nay génn àdduna Gora Ngom mi nga xam ne moo jiite woon Khelcom Bass génn àdduna Mansour Kama mi ñu ràññewoon ci secteur privé bi génn àdduna xalifa bu Medina Baye génn na àdduna ay atam nag toll na si juróom-ñett fukki at ak juróom-ñett ci hôpital général bu Grand Yoff la ko defee maanaam CTO àdduna journal bi tamit xëy di wax ne xalif général bu mbëlëxëy di Serigne Moussa Dia moom jour tabaski la génn àdduna ay atam toll na si juróom-ñeent fukki at ak juróom-ñaar góor ngoom mi nga xam ne moo jiite woon xel kom baas moom tim daat nay génn àdduna yéene kaay gi daan ne mbir mangook yéene kaay gi di Vox Populi mu xëy di ñu xamal na ñu ñi nga xam ne nag ñooy éleveurs yi maanaam sàmm yi ñi doon jaay ay xar ci tabaski gi dootu ñu fàttee ci tabaski gi benn yoona ndax bëri na ay xar yoo xamante ni dafa daal di lamb la waral nag ñoom ñi nga xam ne ñooy éleveurs yi dañu doon wax ci covid bi jël ko prétexte taxe daal di yokk li nga xam ne mooy njëg yi maanaam ñu daal leen fay bàyyil xar yi journal bi di lii quotidien mu xëy di ñu xamal ñu ginnaaw tabaski gi nag ñi nga xam ne ñooy kilifa yëngatu ci lu jëm ci wàllu wér gi yaram gi jamono ji tiit nañ ba maara day taale la ñuy tiit nag mooy woppi coronavirus sa law ci réew mi ginnaaw nag jaabante ji nga xamante ni askan wi def nañ ko ci tabaski gi yéen a kaay gi nee na lu jëm ci woppi coronavirus Sénégal jamono ji maanaam lu toll si ñaari téeméer ak juróom-ñeent ci ay nit daal nañu ciy faatu maanaam alxamis jàpp samedi ji lu toll si juróom-ñeenti nit faatu nañu si Sénégal jamono ji moo nekk e a moom Serigne Moustapha Sy bi nee na ma ngi hôpital principal ñu koy nga xam ne ñu koy def ak di tudd soxal wàllum gouvernement d'union nationale Assane Samb nee na nag maanaam remaniement ak gouvernement na d'union nationale lu mën a nekk la waaye nag nekkul loo xam ne lu jàmp la ndax Sénégal amul ay jafe-jafe ci lu jëm ci mbirum institution Sénégal amul crise politique Sénégal amul crise sociale loolu lépp kon ana lan moo fi tax ñu ne dañoo bëgg a def ab gouvernement d'union nationale te bés bu ñu ko fi defee maanaam bu ñu xaar Idrissa Seck dugg fa bu ñu xaar Ousmane Sonko daal di say dugg te na xanaa du ngeen ne ma Karim Wade day jógee Qatar ñëw dugg ci gouvernement bi maanaam na nga xamante ni daal maanaam ay mbogo mbogo lañ jëm ci wàllum politique ñooñee mën nañu leen see dugal su dee Macky Sall def na ko yéen a kaay gii de Le Quotidien mu xëy di ñu xamal naan ñu marché Sandaga maanaam ñoo ngi koy daj waaye nag projet ba nga xam ne moom lañu fay def toll na ci cent dix milliards lu toll si vingt quatre mois la ñu koy daal di liggéey lii Quotidien nee na Sandaga googi maanaam ñeenti bulldozer la ñuy jëloon pour ñu daal di kay daaneel waaye nag ni ki démb ñu nemmeeku mooy ñett yi dafa paan yéen a kaay gi de La ñu xëy fekk fa professeur Mamadou Diouf nekk université ca diwaanu Colombie daal nay wax ne Macky su présenté woo ngir nag am ñetteelu mandat ci réewum Sénégal Sénégal waaye Afrique si boppam mooy explosé te bu boobaa giraawaali gu rëy dina am ci réew mi yéen kaay gi nee na espoir jamono ji maanaam nag xel mu dal Ama Baldé ak Modou Lo mën nañu ko am ndax Luc Nicolaï mi ñu tëjoon ci kaso bi te mu tëggoon seen combat daat nañu koy gracier stade yéen kaay mu xëy di ñu xamal lan ñu Ismaïla Sarr jamono ji waa Crystal Palace maanaam ñoo ko bëgg ngir mu footballal leen journal bi nee na Paris Saint-Germain mbooleem coupe yoo xamante ne nekk na ci France ren ji Paris ñoom gànna gay ñoo ko jël maanaam ñoo ko waabale